Papa Ndiaye lan moo nekk sa moment yu gën a difficile ci kaso ba. waaw sama moment yi gën a difficile ci kaso moom wax dëgg yàlla commencement bi la ba fin bi. Mm-hmm. commencement bi ba fin bi dafa difficile. lépp dafa difficile. Mm-hmm. mais bokk na ci bokk na ci bokk na ci fi kaso bi gën a difficile ci man mooy que bi ma demee ba comprendre ni man mii nii. am na mission boo xamante ne moom laa war a dox si sur ma dem ba nga xamante ni tegal nañ ma ko ci sama kanam ma xool ko ba xam ne man mii nii man maa nekk nii te lii laa war a dox si ñu wan ma ko jaxaran ma gisal ko sama bopp xam ko moment boobu noonu yàlla dafa def suma maam mooy élément bi ngeen teg sànq moo tax élément élément boobu ça me touche beaucoup mu taxaw ci tele bi di expliquer ne bàyyi leen sama pap mi mu génn bu dee dee ñëw dee si sama biir néeg dafa doon moment boo xamante ni moment bu méttee métti métti métti métti métti metti métti ci man la malgré que li ma def ci kaso bi lépp tout ak li ma def ci kaso bi lépp moment boobu moo ci gën a métti ci man parce que xam nga lu tax moment boobu gën a métti ci man ndax suma maam bii moom mooy suma maam dëgg la waaye sama nawle la te am na quatre-vingt-deux am ay doom yu góor ñu mënal ko lépp macha allah luñ ko dara macha allah di ko togloo ci kër gi mu bañ bàyyi kër gi day ñëw ba ci buntu prison ba te fa di nelaw bu nelawee ba yeewu dem ci bitig ba jënd benn mbuusu ndox yónnee ko ne dem leen ci paap jox ko ko garde bi nekk ci buntu prison bi garde yi nga xam ñoom ñooy nekk ci buntu prison bi am compréhension boobu noonu comprendre maire bi ci dimension bi muy dawee ak dimension bi muy doxee barki Demba Ndiaye tout récemment rek bi ñu ko nee bi ñu nee bàyyi nañ Pape moom moo ko njëkkee yëg moom xaw ma fu mu ko yëgee mais moom moo ma ko njëkkee yëg <laughs> parce que ci guddi googu la ñëw ci prison bi ay vers dix heures neuf heures xam nga foofu kaso kenn du fa ñëw heure boobu. ndeysaan moom mu ñëw fëgg bunt bi këng këng këng këng këng. garde bi tijji ko ne ko yow lan ngay def fii nii mu ne ko Pape bàyyi nañ ko dama ko indil xaalis bu subaa na ñëw na paas joxe ko fa ay dix heures ci guddi garde bi ñëw ba suñu buntu nekk. ndeysaan xam nga kon kooku. kenn du maam waaw kon xam nga kon kooku kon kooku loolu dafa nekk loo xamante ni lu difficile la man moment boobu noonu ma gis ko ci télé bu mu taxaw di wax moment boobu mooy moment yi nga xamante ni ñoo gën a difficile ci sama kaso sama adduna yëpp. sama adduna yëpp moment boobu moo ci gën a difficile. te loolu garde yi seede nañ ko ak quatre-vingt-deux ans musul absente visite. effectivement loolu lu am la.